ixwaani fillah assalaamu aleykum wa taala wa barakaatu bokk ñu bokk yàlla kii seen soppele ci yàlla Abdul Ahad moo desuwaat di leen nuyu di leen ziyaar di tatagal di baalu xaq di baalu xaq di ñaan yàlla boole ñu jégal bokk yàlla mu mel ne al yawma yawmal arbaa yi tey bisab àllarba di mercredi 17 eh, shawwal 1443 mbokk yi tey àllarba la fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru kori ci atum 1443 atum junni ak ñeent téeméer ak ñeent fukk ak ñett ci hijriya ci gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di légir euh, dëppoog 18 fukki fan ak juróom-ñett ci mois de mais ci weeru tubaab yi ñuy wax mois de mais atum 2022 atum ñaari junni ak ñaar fukk ak ñaar bokk bokk yàlla tey àllarba bala fukki fan juróom-ñaar bokk ci lim ñu fàtte yi tey rafet na waaye àllarba bu nekk nag tey rafet na liñ ci gën a taamun ci rafetaay gi mooy ku ci euh, maanaam euh, euh, daloo maanaam waa ku ci tàmbali ku ci daloo wala ku ci tàmbali dara ku ci daloo wala ku ci tàmbali dara waaye alarba ju nekk nag dañ cay tere tere wattandiku eh, ku ci tàggoo wala ku ci fóot wala ku ci sangu ci alarba bu nekk dañ cay tere tere wattandiku yooyu ñu wax noonu eh, bokk bokk yàlla doo awliyawum ñaanu bis bi allahuma irhamni rahmatan tughnini biha an rahmati eh, min siwaak man siwaak an rahmati man siwaak mu ne allahuma yow buur irhamni yàlla nga yërëm ma rahmatan yërmande joo xam ne tughnini dana ma doy sëkk biha ci moom an rahmatin waleef yërmande euh, man siwaa min man siwaaka boo xam ne ma ngay tukkee ci keneen ku du yow maanaam nee na yow yàlla nag may yërëm yërëm yërmande joo xam ne euh, dafay doy sëkk wëleef beneen yërmande boo xam ne ma ngay tukkee maanaam feneen ah bokk ñu yàlla yàlla nañu yàlla maase defal lool allahuma irham ni rahmatan tuxni nii biha an rahmat an rahmati man siwaak yow yàlla yàlla nga ma yërëm yërëm yàlla nga ma yërëm yërmande joo xam ne daf may doy sëkk wëleef beneen yërmande boo xam ne mu ngay jóge feneen ci kudu yow allahu akbar yàlla nañu yàlla defal loolu ndax kat wala fi dañuy wax ne koo ëmb sàngalam ëmb kersaam léeg nit ki dana lay defal waaye da lay conditionné takk la seret mi ñu wax naan ku la abali bët fu ko neex nga xool lu mel noonu lay muslu ci suñ boroom moo tax mu bëgg yàlla xéewalal ko ba du soxlaal kenn dara buy am soxla ci suñ boroom rekk lay soxlaal moo tax nit ki jaam bi itteem yépp ci yàlla la ko war a def soxlaam yépp ci yàlla la ko def yondu salaa salaam nee na isa saalta fas alillah wa isa staanta fastaiz billah allahu akbar yonente nee na sallallahu alayhi wa sallam ñaan ñaanal yàlla sooy sàkku ndimbal sàkku suñ borom tabaraka wa taala iyaaka naabudu wa iyaaka nastain yaa ko waxoon de xawma nag yaa ngi koy jëfe wala jëfe woo bët bu set da ko fukki yoon ak juróom-ñaar ci julli yi fukki yoon ak juróom-ñaar ci juróomi julli yi iyaaka naabudu wa iyaaka nastain iyaaka yow dong yow kot yow képp yow suñu boroom naabudu la lañuy jaamu man ndax loolu yaa ngi koy def wa iyaaka te yow képp yow dong yow kot nastainu la ñuy sakku ndimbal man ndax loolu yaa ngi koy def allahu akbar mu dëppoo wax yonente boobu sallallahu alayhi wa isa saalta fasalillah wa isa staanta fastaiz billah allahu akbar booy laaj booy ñaan ñaanal yàlla booy sàkku ndimbal sàkku suñ boroom ndax kenn amul looy maye ku du suñ boroom subhanahu wa taala kenn amul ndimbal looy joxe ku du yàlla allahu akbar bu nit ñëpp walaw ijtamaatil insu wal jinn ala an yanfauka laa yanfauka illa bi cheyin maa xadarallahu ilayk ndax mbooleem mbindi fii muy nit ak jinne ñoom ñëpp suñ maase woon ci nan danan dañ laa bëgg dimbale ca neexu suñ borom subhanahu wa taala munuñ laa dimbale lu du la yàlla atte ci yow la yàlla dogal ci yow képp lañ man ci yow moo tax mboolem nit ak jinne suñ maase woon bëgg puus ab sarran benn fepp suuf ñu maase bëgg ko puus te neexut suñ borom mënuñoo déplacer fepp suuf woowu allahu akbar moo tax nit ñëpp suñ maase woon ci nan la dimbale te neexut yàlla mënuñ laa dimbale dara waaye ñoom ñëpp suñ maase woon ci nan la lor an yadruuka laa yadruunaka bi shay illa ma xadarallahu ilayk munuñ laa lor ci lu li nga xam ne yàlla tudd na ko ci yow ndax lan an nafu wa durru min arrahmani laysa min albidaani wassuudaani allahu akbar الضر ونفو من الرحمن ليس من البيضان والسودان ndax lan njariñ ak lor ci yàlla mi aji yërëm ji képp la mën a bàyyeekoo munta bàyyeekoo feneen du jóge ci nit ku weex du jóge ci nit ku ñuul nit ku weex mënu la jariñ dara mënu laa lor dara waaye nit ku ñuul it mënu laa jariñ dara mënu laa lor dara njariñ ak lor ci suñ boroom subhanahu wa taala lay jóge loolu lu muy tekki loolu mooy tekki ne lépp lu yàlla xatte ci yow lool rekk mooy ñëw ci yow waaye lépp lu yàlla atu ci yow loolu du ñëw ci yow kum ko man di jaare la ci yow it xamal ne la fa nëbbatu mooy suñ borom subhanahu wa taala su la abdul ahad dimbalee yow gis nga ne abdul ahad moo la dimbale waaye ca dëgg-dëgg du abdul ahad waaye yàlla moo la dimbale ndax su ko yàlla joxutoon abdul ahad dogal ko ci moom digal ko ko conditionné ko du ko man kon ca dëgg-dëgg allahu wal mustaan yàlla mooy ki nga xam ne ci moom rekk lañuy ñuy sàkku ndimbal moom rekk mooy dimbale moo tax wa man yatasim billah faqad hudiya ila sirati mustaqim képp ku jàpp ci suñ borom tabaraka wa taala tega nga ci yoon wana coow walazina jaadoo fiina la nahdiyannahum subulana wa inna allaha la maa almuhsinin allahu akbar yàlla sama boroom subhanahu wa taala nee na ñi nga xam ne dañuy jihaad ci man di ma jaamu di ma xeexal di ma liggéeyal la nahdiyanahum subulana ñooñee danaa leen jubal ci sama yoonu jubi sama yoonu jubi danaa danaa leen ci jubal allahu akbar ndax lan wa inna allaha la maal muhsinin ndax yàlla nee na maagoy rafetal yi ñoo ànd walazina jaadoo fi la nahdiyanahum subulana wa inna allaha la maal muhsinin allahu akbar moo tax way rafetal yépp ñoo yàlla ànd kon dañ ciy dégg ne way ñaawal yépp wan nañ ginnaaw suñ boroom suñ boroom wan na leen ginnaaw kun àndal iblis lañ àndal iblis ànd ak ñoom kon nag soo bëggee yàlla jubal la soo bëggee yàlla nekk ak yow ànd ak yow der rafetal ci wax ci jëf ci wéet ak ci wéttaliku yàlla nañu ko yàlla defal bokk bokk yàlla moo tax yónente wax ko moo tax ñaan gi ñaanu yónent bi la sallallahu alayhi wa moo ko xamle moo ko jàngale allahumma yow sama boroom yow buur bi irham ni yàlla nga ma yërma yërëm rahmatan yërmaande joo xam ne tuxu nii nii dana ma doy sëkk eh, bihaa ci moom an rahmati man siwaaka wëleef beneen yërmande boo xam ne euh, ma ngay bàyyi koo ci keneen allahu akbar moo tax mu ne isaa sa alta fasalillah booy laaj laajal yàlla booy ñaan ñaanal yàlla wa isa staanta fastaiz billah booy sàkku ndimbalit sàkku suñ boroom booy sàkku musulaayit sàkku suñ borom ndax yàlla moo mën a dimbale waaye yàlla moo mën a musale waaye yàlla moo mën a yërmande ndax a addurru wa rahmanu ndax an nafu wa durru min arrahmani laysa min albidaani wa sudaani njariñ ak lor ci yàlla mi aj yërëma ji képp lay bàyyi ko waaye du bàyyi ko ci nit ku weex du bàyyi ko ci nit ku ñuul bokk ñu bokk yàlla bokk ñu bokk yàlla hadisul yawma xaala rasulullahi salallahu alayhi wa sallama man qaala astaxfirullah alazim alladi la ilaha illa huwa alxayu alqayum wa atuubu ilayhi xufira lahu wa in kaana farra min alzaxfi rawaahu eh, ahmad wasaahu albani mbind bi ci suuf dafa sew lool moo tax mënuma ko gis rawaa bi daa mel ni ahmad la bokk ñu bokk yàlla yonent bi salaam nee na man xaale képp koo xam ne wax na ginnaaw buñ ñaanale yonent bi jàmm ak salaam ak yiw ak tawfiq ak taysiir yàlla sëmbatar ko ci kawam dooli ko mucc dooli ko kóolite moo ñooñam ki sahabaam yonent bu tedd boobu nee na bokk yi ñu bokk yàlla man qaala ku wax na astaghfirullah alazim alladi la ilaha illa huwa al qayyum képp ko wax astaghfirullah maa ngi sàkku njëggal ci yàlla alazim mu màgg mii nga xam ne mooy aji màgg alladi yàlla moomu nga xam ne laa ilaha kenn du buur ilaa huwa kudun moom alxayu mooy aji dund ji nga xam ne day dund ba faw te du dee alqayyum mooy aji sax ji fii ba faw te du fi jóg wa atuubu te muy tuub ilayhi di dellu ci suñ borom subhanahu wa mu ne képp koo xam ne wax nga lool ba noppi tuub dellu ci yàlla nee kooka xufira lahu yàlla dana ko jéggal wa in kaane donte moom farra dafa daw mina zahfi ci toolab xare allahu akbar mu ne képp koo xam ne wax nga baat yi ñu wax léegi nee na kooku même bu doon xare daw ca xare ba na wëqit teg tànk yàlla jéggal ko allahu akbar loolu alquran mag ñu koy jàngal mosoon naa dal saxaaba yi ca xare Uhud waqët ñu ci bëri dañoo daw waqët lañ def teg tànk bi alquran waa istusidoona wala tulwoona ala ahadin wa rasul yadwookum fi uxraakum <laughs> allahu akbar mu ne bis ba ngeen ne waqët di daw geesu seen ginnaaw sax defu leen ko yonent bi di leen woo naan leen ilaya ilaya ilaya ñëw leen ñëw leen ngeen wane ginnaaw yéen ñëpp daw ci xare boobu ci lan damoon sellab yonent bi sallallahu alayhi ko daaneel ko ci kambu talaatal xayri talaatam yiwuma boof ci kawam xeej yeeg yépp di dal ci kawam ndeysaan ba yonent bi sallallahu alayhi wasallam yàlla musal ko kere bi ko yaay Fatima radiyallahu taala anha di ko raxasal derej yonent bi di wax waxam ju siiw ja kayfa yaflaw qawmun faalu bi nabiyim hada man ñii nit ñi def nii seen ab yonent man ñii de xawma fu ñuy texee ci àdduna ñii xawma fan la ñuy texee ci àdduna allahu akbar nit ñoo xam ne dañoo xaañ seen ab yonent dagg bopp ba ba muy caacar yi naaj damm ab sellam damm bëñam ñii daal xawma daaneel ko ci kambu ñii daal xawma nu ñuy def ba texe rek kayfa yaflaw qawmun faaloo bi nabiyihim haada ñii def jii jëf fu ñuy texee daal xawma ko yàlla bay wu mu sedde ca saase la ko yàlla wax ne ko laysa lak alihim laysa lak min amri shay sa lakk min amri shay loolu moom mbir yooyu moom sa yoo nekku ci texe texe di ba ko ci sama loxo man yàlla maa ko yor ku neex nga texe ku neex nga texe di gis nga ñii la def nii xaañ la damm sa bañ gaañ la daane la ci kàmb tey tey bun tuubee ma tàbbal leen àjjana bun faatoo allahu akbar te loolu kay firnde ji leer na nañ ña defoon noonu xaalid ibnu walid ca la bokkoon ca gis nga ko euh, mujj na tuub dugg ci diine nekk jàmbaari fakk tëdd ñaata xeex ñaata dëkk ñaata réew Xaalid ibnu Walid ubbi na ko allahu akbar te ña defoon noonu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ña doon xeexa moom ba lool dal ko eh, ca la bokk ca xare Uhud moo leen gënoon a sonal moom Xaalid ibnu Walid moomu ndax moom moo làqatu woon xeer wa ba ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ne bu leen wàcc biñ wàccee rek Xaalid doxaleen ginnaaw xaw leen leen a yóbbu yowmal qiyaam allahu akbar te mujj na tuub dugg ci diine nekk jàmbaar yi fàkk tëdd moom Xaalid ibnu Walid euh, ridwanullahi taala alayhi euh, rahimahullah yàlla na ko yàlla yërëm ridwanullahi taala alayhi allahu akbar bokk bokk yàlla moo tax yontu salaa salaam nee na képp koo xam ne wax nga wax jii baat yii nee yàlla dana la jéggal say mboole mi bakkaar donte da ngaa daw ci xare allahu akbar kon mbokk yi war nañu maase ñun ñëpp di ko wax ngam ko ñun ñëpp war nañu maase di ko wax ndax yàlla boole ñu jéggal suñu bàkkaar loolu mooy lan loolu mooy astaghfirullah alazim alladi laa ilaha illa huwa alxayu alqayum wa atubu ilayhi nee na ku ko wax gufira lahu wa in kaana farra mina zahfi donte dafa daw ci guerre da doon xare eh, na waqit daw su waxee baat yi suñu borom subhanahu wa taala dana ko jégal bokk ñu bokk yàlla kon bokk ñu bokk yàlla hadis baa ngoog ñaan gaa ngoog leerulu bis baa ngoog xam naa ñu gàttal ko fii tey ba beneen yoon kii seen soppale ci yàlla Abdul Ahad aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa saari mumin assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala barakatu daayiratul fadli kuñ fornome war ngay sant yàlla ñun lay sigil kese loo doon si di baram